mooy 77 634 06 68 ñu leen di fàttali itam suñu doom jooju nga xam ni dafay yëngatu ci wàllu suuf ngeen dem aimé ba pare partagé ba pare abonné ci chaîne am Mouslaye Imo moom ngay bind boo ko bëggee gis Mousselay Imo nag day dox ay jéego ci wàllu suuf ku ci am problème wala ay kër di luye walla ngay jaay walla nga am leneen loo yittewoo daal ci anam yooyu soo ci waxtaanee moom dana la ci xelal dana la ci teg ci yoon tette la ba sa ajo faju loolu nag moom defuñu ko publicité déedéet lu ñu xam la ndax xale boobu doom la joo xam ne ji miin nañ ko ci wàllu jikko kon nag ñu ngi soññ mbokk yi ku ci nekk ci lu mel noonu nga dem waxtaan ak moom bu ko defee ñu ñëw ci sunu waxtaanu tey jëm ci koo xam ni kii dégg nañu ko mu yëkkati ay kàddu jëme ko Ousmane Sonko ma jàmbal jaañ la du tudd man jaañ ji metti na ma waaye nag donte bokkuñu jaañ waaye réew mi ñëpp ay mbokk lañu waaye rawatina ña bokk aw sant bokk Cees itam muy dëkk boo xam ne bii bu sori ci sama xol kon su ma sañoon ñu fay xëyee ay nit ñu regle la ñuy doon nit ñu baax nit ñu yiw la ñuy doon donte nag loolu réew mi yëpp laa ko yéene yéene ko àddina fu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne afdalul jihaad kalimatu xaqin inda sultaanin jair nee jihaad ba jihaad jeex li ci gën mooy nga jàkkaarloog buur boo xam ne bii bu am doole te saa yoo ko waree wax dëgg jàkkaarloog moom xool ko wax ko dëgg ga muy dëgg ko neex muy dëgg gu ko naqari buur bariwul lu muy nangoo dégg dëgg kon loolu mooy jihaad bu mag ma njàmbal jaañ soxlawul moos ma koy wax naan ko ma yalfizu min qawlin illa laday ladayhi raqibun atid soxlawul ma koy wax alquran wala wax yonent bi naan ko yàlla nee na amul kenn koo xam ni kii danga àddu benn kàddu lu dul am na koo xam ni kii dana taxaw ci sawet di la fuglu te la nga wax lépp dana ko bind loolu jarul ma koy wax ma jàmbal jarul ma ko koy wax ndax nag euh, nit ki dana àgg ci benn niveau boo xam ni bii xol bi dana wow wowaay boo xam ni di ko fàttalee ti muy fàttaliku est-ce que loola dana mën a nekk ndax poñeti àddina yi nguur ak alal ak ay avantage bu demee ba fees dell sa xol leneen lu dul moom du fa am place ma jàmbal su fekkee ne nii nga bëgg a dunde sag dund buñ ko booleeg nag waxtu jot ngay jàpp ci jublu penku naan allahu akbar jaratul it weeru koor ngay woor ndax suñu borom tabaraka wa taala soxlawul kooru julleeg nit koo xam ni kii dangay yàq deru gor ak di ko tuumaal ak singali ko ci loo xam ne lii du dëgg du yoon ma jëmbal honneur ak dignité rek waroon naa tax nit ki bu fekkee ne danga nekk ci deram di ko ŋàññ ba yàlla dogal am lu ko gaar loo xam ne lii mënatulaa tontul boppam nga am honneur ak dignité dégg naa sa beneen nawle boo xam ne bii moom ba muy tudduwaay dafa ne bëgguma wax ci moom lu bari ndax kat mënumaa tontu loolu mooy ngor loolu mag mooy ngor nag loolu mooy ngor waaye ndokk ba nga xamee ne Sénégal am na ay gor yoo xam ni yii ñu seetaan mukk ñaawteef yu mel ne yii ngay def yàlla wax na ci alquran wala yajrimannakum waxuma ko nag ma jëmbal ñi nga xam ni ñoom ñoom àgguñu ci niveau bii mu àgg ñoom laay wax ak ñi nga xam ne defaguñ ko waaye ma waxaale ko ñi nga xam ne ñoom defuñu ko waaye waroon nañoo xam ñaawteef gi fu mu ñaaw yam wala yajrimannakum shanaanu qawmin ala an laa taadilu yàlla nee na bañ nit mere nit am ak nit ab dig wërta tax saa yu atteel ko jotee nga koy atte ñàkkal ma jàmbal tu Madiambal tu es extrêmement indécent ku yiwadi nga ndax yow boo baag léegi ci façon bii rek nga nekk ndok ba Ablaye Wade teelee xam loolu dagg sa lu bon dugal la ci biir kaso xam naa nga ne ah kaso bi neexul naa def li xew ci réew mi mooy raam sukk toroxlu di tap fu tooy ni weñ su ko defee loola amal ma njariñ waaye ana njëriñu àllaaxira ma jëmbal waaye ana njëriñuy àddina joo xam ne ji doom yi nga jur ëllëg tey ak ëllëg ku leen joxar bi baaraam ñu xool la ci ñeenti bët ndax nag su boobaa seen baay daf fi bàyyi woy woo xam ne wii kenn du am lum leen di waxal wala ku leen tudd ñu tontu la yow loolu sóoraalewuloo ko ma jëmbal ay doom nga yor te nawle lañ ay doom nga yor te nawle lañ te am nañu xel te yaakaar naa ne histoire dana denc vidéo yaa ngi fi façon yii ngay def muy façon yu ville yu doyadi say doom bu ñu màggee ëllëg gis taxawaay bi nga am ci réew moo xam ni mii citoyens yi dañ leen war a protéger nga dem far ak ay nit ñoo xam ne ñii dañuy noote citoyen di leen sukkal di leen raamal di leen defal ay sale besogne parce que Abdou mi nga tudd ci wax ji yow ma ñaata yoon nga fi tudd yoonu murit wax ci yoonu murit lu tax taalibe yi bëggoon a futteeku fekk la fa nga ne ñaata yoon kenn xamul nu mu toll ma jambal yow yàlla mi la bind sax gëmuloo ko parce que ku gëm yàlla am na jëf ak i wax yoo xam ne dana ko jombale boppam tu es vil mbokk yi mbokk yi hadis bii hadis bii may jàng bu jara bàyyi xel la inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi taala maa kaana yazunnu an yabluga maa balagat yaktubu llahu lahu biha ridwanahu ila yawmi ila yawmi yalqaahu wa inna arrajula la yatakallamu bi kalimatin min saxati llahi maa kaana yazunnu an yab an tabluga maa balaxat yaktubu llahu lahu biha saxatahu ila yawmi ila yawmi yalqaahu su dee ci bu njëkk bi dama wax an tab an yabluga njuumte la sabqu lisaan an tablugha la doon ndax mu annas la kalima la wax loolu li mu tekki mooy waaye ngi di génnee ci gémmiñam ay kàddu jublu ca ngërëmu yàlla nee na du xam moo sax kàddu googu fa muy àgg ci njëriñ fa muy àgg ci tedd nga ba nga xam ni suñu boroom mën na ko caa bindal ngërëmam fii la koy tàmbalee ba bés bu muy dajeeg moom nee na nit it mën naa génnee kàddu boo xam ne bii yàlla dana ca mer lool su fekkee ne mën nañ koo askaneele mer ndax nag mer ma dana àgg foofu foo xam ne moom mi ko doon wax mënul xalaat ne loolu mën na faa àgg yàlla bindal ko ca am meram yàlla bindal ko ca sànje joo xam ne ji da koy topp fii ba bés bu muy dajeeg suñu boroom kon nag bokk yi bu ñu xeeb ay jëf bu ñu xeeb ay wax ndax mën nga koo jàppee lu ndaw fekk mu weesu loolu ngay jàpp kon nag bokk yi war nañu bàyyi bés bi nga xam ni moom la suñu boroom di wax wa jaat sakaratul mawt bil xaqi zalika ma kunta minhu tahid bés a ngi ñëw de te soriwul rawatina ci ku am at yi nga xam ne yii moom la ma jàmbal am soixante ans passé benn tànk ci biir bàmmeel leen ni àddina warulaa jaral ngay xeex nit de façon déloyale honneur dong mayew ko dignité mayew ko bu ko defee foofu la ñuy yem ci kàddu yooyu sànni leen kàddu yu gàtt nag bala ñuy tàggoo ci waxi parrainage bi am na ñu ko wax reste à vérifier ñu ne am na ñoo xam ne ñi ngi dem sol sax ay tenue ay t-shirtu Pastef ne ñooy dañuy dem di wuti parrainage su fekkee ne parrainage yooyu ñooñu koy wut dañ koy def ci turu Pastef te Pastef yabalu leen yaakaar naa ne dëkk ba ñu dëkk am na fa ay ndawi Pastef am na fa ay représentant Pastef yoo xam ne donte dañu ne tas nañu parti bi ñooñu ñoom xam nañu qui est qui et qui képp koo xam ne kii indi nañ ci yow benn kayit woo xam ne dañu ne kii waa Pastef la na nga ko topp ba mu leer yow miy signé waaye ñi nga xam ne ñooy taxawal Pastef nañ ko topp ba xam ndax loola leer na wala leerut su weerul nañ ko poñe téye ko ànd ak moom dem ba ci yoon ba pare na leen jaral gendarmerie ba wala police ba nañ fa taxaw di ko fuglu ba xam dañ ko téye wala duñ ko téye su fekkee ne yoon def na liggéeyam loolu am naa ci xel ñaar moom waaye mën naa ne ndax du ñàkk commissaire bu jub du ñàkkit xëy na magistrat yu jub ci yenn bërëb bu fekkee ne yoon def na liggéeyam su yoon deful liggéeyam su fekkee ne li jiitu mooy këyit yooyu nga xam ne moom la yor moom ngeen di jëkk xotti bu fekkee ne kooka du ndawal Pastef xotti këyit ya moom day war ndax ku Pastef yónniwul yónniw la ku Pastef yónniwul yónniw la su ngeen ko tegee ci loxol yoon nag te yoon deful liggéeyam ngeen xëy ci ëllëg sa gis ki ngeen yóbbu woon te amul suite yéen ñi nga xam ne yéen ña ko jàpp woon kenn woowu leen wax leen lu tax ñu bàyyi ko na ngeen xam ni kon yoon doxatul ku ngeen jàppati muy def loolu bu leen ko bàyyi noonu lu golo xam na boo boote doomam ku yam ku yebu nag ne ma appel à la violence wala appel à la luñ ko mën a tudde ñoo xam mbir mi daal day àgg foo xam ne fii fu lay jaay daqaar walla ma ñam jeexal ko ndax nag am na loo xam ne ku koy def yaay tooñ te ki tooñ bu mu sedd fu fu ay wi yem déedéet bu mu sedd fu ay wi yem lépp loo xam ne lii daal alali jàmbur la nga cey dugal sab loxo lu la ca fekk da muñ say bokk muñ fu la nag mooy jaay daqaar wax naa leen ko bu ko defee wax ji foofu lañ koy yemale ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.